Ah, maa ngi nag bàyyi nga am jàmm ndax tey maa mi ngi neex baax a baax mais waaw ah mais information yi mais ah waay wax dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg bàyyi mais comme ak comme affaire bi am démb noonu comme affaire bi am démb noonu gars yi ñoo ko def benn benn ñoom ñoo teg seen deal quoi pour ak accusé Wally yaa ngi dégg quoi seen ci ci ci ci ci ñoom la ko xam nga ñoom xam nga ñoom xam nga ñoom ñoo teg seen deal ndax démb démb démb affaire bi avant la soirée ñu am. donc commencé nañ defal seen for montage waale ay Sidi Diop nan day waale dañ koy juutal ak affaire yooyu noonu quoi yaa ngi dégg man maa ngi maa ngi ko gis ci ci ci ci ci ci ci ci statut El mooy snapper bu bu Sidi bi moo njëkk def statut loolu def ay retaan di pëlub jaaxal def di di di yaa ngi dégg quoi ci ñoom la commencé après ñoom ci lañ dem as jënd benn ci lañ dem jënd benn kii quoi benn pompe à gaz biñ jënd pompe à gaz après ci lañ ko ci lañ jëlee pompe à bi teg seen dund. Jules Jules moo nekk manager yi moo nekkoon ex manager bu bu bu Mandiaye Seck nii moo nekk ci staff studio bi la bokk ci ah, Subatel la bokk quoi a moo yaa ngi dégg ñoom ñoo ci ci Mandiaye Seck lañ nekkoon quoi yaa ngi dégg si xam lu la man ay information yu leer laa lay jox yaa ngi dégg si xam lu la Zobes envoyé Jules Teranga ni ko jënd naa pompe à gaz xaalis bi mu jënd ko yaa ngi avant soirée bi lañ jox loolu mais jour soirée bi Sir Diop Faye bi mu yégee ñett quatre son la woy quatre son yi mu way ci lañ jël pompe ak gaz sànni ko nit ñi fa nekkoon sëqat ñi di génn Sir def créé benn benn benn kii naan affaire yu saytaal yooyu di jooy affaire yooyu noonu nit ñi fa nekkoon ñoom ñoom ñoom ñoom kii ñoom Ibro Naajo Ibro Naajo fu mu toj ak Omaro nga xam ne duñu sub dara Omaro duñu sub dara kooku traiteur la kooku dafa dafa yàlla kooku c'est un imbécile yaa ngi dégg si xam nga wax parce que moom moom moom moom moom di ko war def lépp ak fu mu war a jaar ak moom quoi moom lu koo xam ne waroon naa def lii quoi si yaa ngi dégg moom wax li mu def yaa ngi dégg moom li mu def ko moom li mu def lu ñaaw la ndax dafa def vidéo gars yi tim ko ñoom Zil Teranga ñoom Zobes ñëpp taxaw ah mu wax daal ni accuse Wally devant devant le caméra devant caméra yëpp quoi yaay dee isxamul ma wax mu wax wax ju ñaaw di Wally Seck bi fi di tëgg ñoom ñoo def loolu naan après teg si menacé Wally yaa ngi dégg menacé leen naan ni ñun duñ ay ñun dañuy fayu yaa ngi dégg est-ce que lu ma la wax ndax gars yi dañ seetaan affaire bu baax mi ngi ci net bi yaa ngi dégg teg ci menacé Wally Seck quoi ak l'estape Wally Seck ak ñi xam ñoo war a Wally loolu da cee ndaw quoi Omaro moom da cee ndaw Omaro kooku gëm lu fekk xaalis la gëm quoi yaa ngi dégg kooku gëmul dara gëmul tus du kooku du nitu dara jóge ci jóge ci affaire yàlla ñëw ci ay affaire seytaane nit ñi dina ci tudd nga yaay bàyyi Sidy Diop da ngaa nekk mën a bàyyi nekk bàyyi kenn te nit ñi dañ la amaroo nit ñi dañ koy daw kooku traître la kooku dafa yàlla du nit ku baax si xam lu ma wax Sidy Diop nag moom moom dafa yaaxule bu yàgg moom dafa yaaxulee bu yàgg te lii ñuy def nii pour bëgg pitié pour nit ñi yërëm leen loolu nit ñi gëmuñu leen ñun xam nañ li yéen woon maanaam ndax na ngay ñëw boîte bu ngay ñëw nit ki koo xam ne yow fan sa nga ñëw di sélancé di yor pompe à gaz pompe à gaz di toog di dugal moom loolu nit ñi mënuñu xel nangu loolu quoi yaa ngi dégg man bi ma ko déggee loolu c'est ça c'est laa wax ni gars yi mu toogal man leen loolu amul quoi c'est des faux informations xam ne ñoo ko teg seen dil def ko ni pour créer benn polémique boo xam ne nit ñi dañ leen a gëm is xam lu ma la wax li ma la wax daal mooy moo ci am quoi yaa ngi dégg is xam lu ma la am na audio bi ma envoyé nii boo xam ne zil zil zepes moo ko envoyé zil teranga incha allah rabi audio bi naa la envoyé nga dugg ko ci ci ci passe bi quoi yaa ngi dégg ndax lii loo xam ne tey jii dañ ko fiy jëlee waale désormais man xam nga rek ma bàyyi fal la ma nit ñi woo yaa ngi dégg loolu désormais day jeex tey jii tey jii day jeex waale lépp ko waaye def ñun ah incha allah rabi dañu ko liggéeyal ba xam lan ak lan la ndax waale kuy tooñ waale yow waale day moromu Sidi Diop saa yi yow gis nga kër waale gi mu taxaw ci beneen bi ah ak oto yi waaye yow saa ay waaye booy bu mu booy bu mu woote yi waaye booy maa ngi dem sax ah maa ngi coupé daa am lu may lijjanti ji maa ngi dama ne ci yoon quoi